Abdoulaye Faye Mara social tey ñu la doon dalal fi la ci Galsen People ak euh, Merveille Thiès TV ñoo la dalal tey nga invité ñu fii si sa benn kër ci kër yi nga amee ñu bàyyi la ne la asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu ak di nuyu kilifa diine kilifa aada yi di nuyu Serigne Mountakha Mbacké mi nga xam ne moo fi teewal murid yàlla ko yàlla yàggal ko te wéral ko di nuyu sëriñ Mbay Si Mansour mi nga xam ne moo ñu teewal moo ñu nekk suñu kilifa yàlla ni yàlla ma kenn di rafetlu seen déplacement bi nga xam ne déplacé ngay ñëw fii sama kër ngi seet si mhm. ko waxee si mbokk chrétien da nga leen ñëw di leen ziar yàlla àgg leen seen mbir rek seen si jàmm rek. Mhm. waaw ñu sëñ mhm. mais lu ma ko créer xam nga li yàlla may la. parce que àdduna mooy bindee noonu yàlla dafa am ñu mu may. mooy te yàlla may na ma secret boo xam ne dama koy def ay doomu aadama yi nekk minti milliardaire nii di am alal di am teraanga te loolu yombul parce que bo xolé tay nga gis ko xamné yoruul dara nga fexé ba daf ko mu am alal mu am teranga te xamné na ko loolu dafa bax parce que jamono bu toll mi dafa dafa laaj ku nekk yor alal parce que alal mo tax nga mëna dund dund bo xamné bu normal bo amul alal do mëna dund dund bu normal kon képp ko xamné mën nga dem defi pour nga am alal def ko parce que alal moy buntu lepp parce que tay état bi nga xam ne sax moo sunu état bi jamono ni soxla na xaalis jox na alal kon alal àdduna bi yépp la ñoo soxla alal parce que tey lépp loo xam ne yaa ngi koy utiliser si xaalis nga koy fayee muy courant xaalis nga koy faye ndox xaalis nga koy fayee ah sa dund sa jang do am sa sa sa, sa tabax kër wala sa jënd ay auto lépp ci si si alal nga koy kon ku nek fas na pour wuti alal te xam nga jëmul toll ni képp amul alal kenn dula la lijjanti kenn du la faale kenn dara dara du du la ko teg kon képp ko xam paré nga pour wut alal man paré na pour jàmpale la nga nak minti milliardaire te minti milliardaire bu gaaw lay doon bo xam am alal bu gaaw la bo xam bu jaar yoon bo xam bis boko amé mën nga ci jappalé doom aadama kon ñepp xam xam na ne alal mooy doxal réew mi léegi. alal moo doxal àdduna bi yëpp àdduna yëpp ñëpp si jëppi sunu yenent ba. Mm-hmm. ba jamonoy toll nii ñëpp xam na ne alal boo ko yoree si nga gën a mën a jaamu yàlla boo ko yorul parce boo ko yorul xam nga biir bu xiifee. te amul lu si def doo mën a julli doo mën a jaamu yàlla mais boo ko amee rek dinga nga tal yàlla di nga mën a jul julli di nga mën a jaamu yàlla. kon di nga dëgg gur ba sonn kon loolu kon alal dafa baax su ñun dafa bokk su ñun bonul li bon mooy alal bu leewul boo xam ne danga koy am te ja nga bañ ko jaale pour leer. nga bañ ko jaamu yàlla mais am alal. Oh. nga nek minti milliardaire sëriñ touba wala nga nek milliardaire sa alaj malik wala nga nek milliardaire laye ñaseeni qadiri wala nga nek milliardaire boo munta diine boo munta doon nga si jaamu di ci japp doom la adamay kon ku ko xamne ne la ñaan bo nga am alal ko war nga ko sante oh. parce que jamono toll ni raar na kuy liggey ba son te def ay secret oh. pour nga am ay milliards da ngay liggey ba sonn laajal mod mod yi may setan fat fat yi may setan ñi nga xamni ñu ngi bitum rew ñaat at lañ fa nek da ngay gis ko xamni 15 ans 20 ans 30 ans te mënu yor dara nga gis ko xamni day ex sa rew mi rek def ay mbir rek yor ay milliard yor ay terang wi ki ma fa la jaar ki de pourtant man maa ko fi jitu ki pourtant ben werr da ko fi am wala ñaar la fi ñaar werr la fi am am parce que dafa def secret boo xam ne bu koy may alal jamono toll ni képp koo xam ne deful loo xam ne lu lay may alal da ngay perte parce que loolu alal bu bu bëri milliards bu bëri pour nga liggéey ko jamono ni dafa jafe parce que il faut ay ñaan ànd si lool bu yeboo loolu dafa bokk si ñun mbaa mbaa ngay mbaa ngay dugg ci no naxa sa maa la ko wax parce que dafa see bokk man maa la ko wax parce que dafa see bokk parce que jamono toll ni moo mel noonu yow moo moo moo moo bind noonu ah, jamono toll ni loolu moo bind noonu alal ci boppam sel dafa bokk su ñun oh. dafa bokk su su suñu àdduna bi génération bi mujj ñëw bi nga xam ne génération Sonko la ak Jomaay oh. ñoom ñëpp tekki la ñu bëgg oh. alal la ñu bëgg moo tax ni seppi Macky Sall te ko nele jël Sonko indi ko fii parce que ñëpp ñoo bëgg se tekki kër yi rafet yi xale yu góor yi. ñu bë ñi nga xam ne ñoo nekk Sénégal. ak xale yu jigéen ñi. ñoom ku nekk bëgg na ko. ku nekk bëgg na ko jamono toll nii. te danoo bëgg réew mi sokkeeku mu am teraanga ba ñëpp jot si. parce que danoo bokk danoo toll si réew boo xam ne yor oto bu rafet. da see bokk suñu jamono. ak si jamono xale yi. yor kër bu rafet da see bokk. yor teraanga yu bari da see bokk. kon loolu bu bëggee di toog. di fayoku salaire salaire mille cinq euro wala deux mille euros nga bëgg si dundal sa njaboot yi nekk waaw yi nekk bitim réew nga bëgg si dundal sa njaboot yi nekk nekk senegal Sénégal doo dese dara moo tax tubaab yi ñoo créé ñoom ñoo créé mbir yi nii africain yi dugg seen dëkk dinañ leen dóor te dinañ loo seen loxo du leen laal dinañ fexe ba ñoom si boppam dinañ ñibbisi parce que boo amee 30 ans foofu 40 te munoo yor benn dërëm loo am mu si réew. loo am si sa réew ma dox lay des. factures yi courant bi seer na foofu dund bi seer na foofu. ah location bi seer na foofu ah sa jàng doom nga bëgg ko fa fay nga bëgg yow looy lekk looy dund tuuti ngay dese lan ngay fan ngay dajale ay milliards millions hmm. fan nga mën a dajale ay millions foo xam ne foofu 1500 euros wala 1000 francs 1500 euros wala 500 euros ñu koy fayeeku am na ñoo xam ne duñ ko am am na ñoo xam ne day wër liggéey ba du ko am tubaab bi yenn saa yi da lay jël au mois wala deux mois mu dàq la wala mu toog loolu la jël keneen ko foo fooy jaar ba am boo amul ñaan yàlla boo amul ay ñaan milliardaire noo koy amee mais dafa toll si jamono bi sénégalais africains yi ni toll loo xam ne def secret boo xam ne secret milliardaire ni am alal pour mun a defal seen bopp coow li bari na nag coow coow milliard mhm. loolu lu lu lu leer la loo xam ne lu ma mën la loo xam ne lu ma yàlla may la wa sangat la sangat la sangat boo xam ne boo xam ne boo ko defee ak ay tegtal yoo xam ne dangay foo mën a jaar nekk multimilliardaire mm. parce que yàlla may na ma ko te dimbali na ma ko yàlla mululul na ma ko mm. lool la kon daal sëñ dama koy def lépp loo xam ne ay secret loo xam ne pour lu la may alal secret boobu yor naa ko mm. parce que sama bopp laa ko ñëkkee moo tax tey ko moo wax mun naa def nga nekk multimilliardaire war nga ko gëm parce que incha allah amul benn problème amul benn parce que man bañ ma lool. man bañ ma lool. yéen nga xam ne ay journaliste nga yéen ñi nga xam ne client yi nga xam ne dañ leen gis si yéen. ni seen aay di faju wax dëgg yàlla yéen it mu war nga si nga leen bokk. boo leen paree ma def leen ko. parce que client yu bëri seen seen télé yii. leen ko gisee te am na ñu bëri dañuy wax non man seen YouTube dama ko seetaan déedéet. sunu YouTube. ak sëriñ boo xam ne du gën YouTube ñëpp ñoo yem. c'est que parce que tey. mais mais parce que dañuy wax seen seen internet bi mënu dara xamul dara déedéet da ngay wax dajowoo. Hmm. ku la jik dajowoo ku la defal nga am alal wala dajowoo ku mun a fajal sa soxla mais mais mën nga dem si koo xam ne du gën télé du la defal nga gis dara. parce que ñii nga xam ne ñoo ma jël sama numéro yu bëri yoo xam ne si internet koo gisee. personne aju faju mais fekkee damaa yor secret bu bëri bugg adduna bi yëpp. am am ko. adduna bi yëpp am ko. te boo gënu tele noonu def ba xam la. Mm-hmm. fekkee da ngaa bëgg secret bi nga xam ne da ngaa bëgg mu yaatu. ñëpp mu ngi sotti il faut nga gën sa télé parce que télé dafa bokk si suñu génération loo xam ne day yaatal. Mm-hmm. ko bu mu bëggee jël réew mi si internet yi la dem. parce que télé yi nga xam ne ñoo ko waroon feeñal dañ koo koje mu télé état yeeg mu télé ñi ànd nguur dañ koo koje fan la dem ci seen site yi ñoo ko siwal siwal li mu bëgg def ba ñoom ñu génne ko ñin ko ñin suñu secret yi bu mu bëggee àdduna bi yëpp dégg ko dañ koy génne jox leen ko ngeen siwal ko am na solo euh, macha solo bu baax a baax a baax sëñ Ablaye euh, xam ne sëñ Ablaye macha allah yaa ngi defal bi nga xamante ne mën naa ne social 50 touché 100 millions sëñ Ablaye li jaaxal Sénégalais mooy sëñ Ablaye fan lay jëlee milliards non am nga Moussa comme nu ko xé hmm. lolu boo ko laaj dina sawar tontu la si hmm. parce que milliard mën hmm. na wax bu dara ko xamné yalla mën nako ko yomalal xam kan la jafé ki ko nar ko am ko day jafé parce que day jafé parce que yalla binduwulu pour nga am ay milliards mais bu ko fi yalla da la ko bind pour nga am ay milliards milliards du dara milliard mooy 500 millions. plus 500 millions mooy un milliard. mais sëñ ma def ko minti milliardaire. ko sax ma def ko ko mu gaaw. man maa la ko wax. ma def ko ko mu gaaw boo xam ne amoo dara yoroo dara ma def la ko. parce que loolu yàlla moo ma ko may. yàlla sunu borom moo ma ko may. te ñëpp xam na ni yéen ñi nga xam ne yéen a jàkkaarloo man xam nga ni yàlla may na ma. taximan bi nga xam ne jam koo jàppale yoru woon dara. te boobu jamono yooyu. dafa tombe par man aw oto. yor ma oto. maa ngi tàmbale gul maa ngi tàmbale ñaan. maa ngi waxee sama benn client. ma nekk si biir oto bi. tax oh. taximan bi nekk mu bay bàyyi xel ma nekk ci gannaaw mu ni ma. ma ni ko sangat bi da nga koy defee nii defee nii defe nii mu dégg loolu. Uh-huh. mu ne maa boo ko defee nii incha allah rabi di nga mën def loolu mu ne ko ah seen bi wax dégg yàlla. paas bi nga ma bëggoon may bu naa la ko li ma bëgg nga ñaanal ma am alal ma am tekki uh-huh. kooku tey def naa ko mu nekk multimilliardaire boo xam ne instant jamono toll nii taxi yi bàyyi na ko mu ngi si yeneen oto oto yu bëri yoo xam ne tey ak yeneen kër kër yu bëri di bànneexu daal jamono toll nii muy bànneexu bu baax te pourtant si si si si si taxi lañu xamante uh-huh. te pourtant boobu jamono yooyu yoo ma woon oto uh-huh. mais defoon naa ko ba esaan moom ñëw na te yër woon dara jamono toll nii tey mu ngi sant yàlla bu baax kon loolu lu am la lu lu lu ma mën a gëm la parce que lu ma lu ma yoor la loo xam ne lu sell la lu leer la loo xam ne du naxee gis nga lu naxee mbaay du yàgg macha allah tey gis nañu année passée sëñ Ablaye ci social joxe na ay li nga xam ne mooy don yi jëm ci tabaski mhm. ci korité mhm. sëñ Ablaye def na ko mhm. yóbbu na ay nit mhm. ki nga xam ne moo yaayam mhm. yóbbu na ko màkk mhm. boobu yaa ko jëloon yaa ko jëloon ba allah si la nag ak yeneen xaritam cinq moom ak cinq personnes laa bëgg yóbbu <laughs> te ku nekk dinaa fay cinq million parce que ñëpp xam nañ bee Makka mm. cinq million la mm. cinq personnes laa bëgg a yóbbu mm-hmm. yoo xam ne ku nekk dinaa fay cinq millions te boo xoolee sa yaay dugal dugalal nga ko ci waaw pour am na loo xam ne sax mun dama koy ëpp parce que sama yaay dafa bokk si man. sama yaay bu may man mi fekk ma damay jël 10 millions. 20 millions 30 millions di ko mayee. di ko dimbali doomu aadama yi di ko yóbbu ci hôpitaux yi di jàppale doomu aadama yi. sama yaay dama koy dugal compte ba mu fees dell parce que damaa ñaanata sama yaay dama am fu ma fu ma fu ma fu ma génnee. te sama yaay dafa nekkoon ku ku ñàkk ku koo xam ne yoru woon dara sonn tey muy dem ba yàlla dimbali ko ma am kon kooku il faut ma jàppale ko bu baax a baax parce que sama yaay dem naa ma loolu ba instant jël naa kër lumb jox ko ko jël oto jox sama papa tey wax na si beneen kër la nga ma fekk te kër bi nga xam ni moom nga may fekk est-ce que dàqul sama kër yaay bi nga sax dàqu ko parce que boobu dama si am yéene liggéey. ndax waxoon nga ñu néeg sàkket la dëkk néeg ñax la moo tax ma defara ko. te insha allah rabbi kër góor bi ma ko jox mun après mun nga koo jël. Mm-hmm. parce que boobu dama ko liggéey liggéey bu jaar yoon. Mm-hmm. liggéey boo xam ne bu mucc ay boo xam ne dama si am yéene parce que yaay la. Mm-hmm. yaay la. wa adaa rabbuka alaa taxbudu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaana. léegi ko soxla sëñ Ablaye numéro am. numéro boobu noonu boo ma wooyee si kàttu yàlla ma def li nga xam ne moom nga bëgg. waaw tey sëñ Ablaye ñu dikk ak moom. Mhm. li nga xam ne moom mooy li xew si jamono. Mhm. li xew si jamono nag. bu mhm. ko waxee moom mooy actualité la. ci politique. ak ci lépp loo xam ne mu ngi ci yëngu-yëngu. benn ñu commencé li nga xam ne moom mooy. nga tegu ci njiitum réew mi. Mhm. ñu koy wax premier ministre. Mhm. Ousmane Sonko. Mhm. ak li nga xam ne dal na xam nga Sonko comme lu ma ko waxee. Sonko nit ku baax la te jullit la moom wax na li muy wax. moom wax na moom bëggul boroom ñaari tur ci réewam. mais loolu jeexal na wax mais lan ni Sénégal lan la bëgg ñu wax. wala wala du loolu la wax. Mhm. nit nit bu dikkee di ko di ko wut si moom jàppale mën waaw mën na ko jàppale mais mais mais moom nii diinam santaane mu ngi ko def moom nee na bokkul bëggul Sénégal bëgguñu koy te Sénégal du ko mës a bëgg. Mhm. du ko mës a bëgg ba keroog ni ni ni ni suuf kon kay lool kay nañ nañ lan mooy problème kon. Mhm. moo wax nag nee du du bokk kay bëggul kay bëggul kay bokkul kay mais lan mooy problème doo mës am. am na solo maanaam président Ousmane Sonko euh, bi mu génnee yu bëri ñëpp di génn di kaas ki ci mel ni euh, mais mais li ma dégg man. li Ousmane Sonko wax moom nee du ko bës a def. mais que jeex na wax lan mooy problème wala doonoo bëgg mu wax waaw mais moom nee na bëggul kay loolu du am kay loolu jeexal na. te loolu du mos a am su réew ni ay jullit lan ñun ay jullit lan yàlla moo ni sant ni nag ay jullit te loolu dafa araam te loolu du mu a am jullit du ko def te kenn bugg ko kon lool réew yëpp bugg ko réew yi ko bëgg mooy yooyu réew yu bon yi nga xam ne duñ ay jullit gëm yàlla mais ñun ay jullit lan duñ ko def lool ko jeexal na wax loolu loolu den yëpp seen xel yëpp dal président Ousmane Sonko président Diomaye ak bu Macky Sall bu Abdoulaye Wade bu ñeneen ak yi war a ñëw kenn du ko fi daganal jeex na muy espoir la ñuy daanale rek muy ki ñuy wax la dëgër de moom nag mën naa dañ ko jàpp si mbirum euh, faux visa yi nga xamante ni ñu ko nag daan ko daan du métti. mais mais loolu dafa am lu mu si jàngat. lan moo waral xanaa ñoom fayeku wuñ quatre-vingts millions wala cent millions mais loolu ay wala ay dóor la. mais est-ce que man mun ma fexe di fay ko ay quatre millions cent millions. ah ngay dem ci dugg si ay ay ay tarif ka ay ay ay ay ay ay ay ay visa ay yooyu mais xanaa da doylewul wala yow dañ laa fayul wala yow xaalis bi danga nga ko caaxaane wala xaalis bi da nga ko def li gis na mbër ak artiste. ak théâtre kii joué théâtre kat ak film ñooy yam lépp loo xam ne wusin na la fexe nga investir la boo ko si per pertement ngay doon wala nga wuti seen Ablaye Faye mu jox la secret milliardaire nga am alal nga xam dooto am dem dugg si yenn caaxaan yi parce que léegi-léegi li ngay gis ay artistes yoo xam ne dañ yoroon yoratul artiste boo xam ne day feebar du am lu mu fajoo mu fi oh. mbër bu feebar du faju ah kii tiraarkat du fe du liyee du ba si da ngay gis artiste boo xam day dem ba am bu xanaa mu nekk artiste bu yàlla dimbali mooy comme koo xam ne ko jamono toll boo xoolee ku mel ni Youssou Ndour kooku moom yàlla teral na ko ne mel ki nga xam ne mooy Wally yàlla tere na ko tax boo xoolee ñoom ñaar ñoo ñoo nekk ñi nga xam ne ak Baaba Maal ah ñoo ñi nga xam ne ñoo gën a réussir si si si àdduna bi te ñoo ma leer na ma bàyyi ñu seen bopp ñoo gën a gëm sëriñ parce que ñeneen ñi duñu gëm sëriñ te jamono ko gëmul sëriñ da ngay perte kenn waxuloo bu jaamul kenn wax dañ la wax jaamul yàlla nga jaamu yàlla yeneen bi ko topp si ak sa ñaawaajur mais il faut nga boole si ñaan réew mii Afrique foo mën a doon boo boolu ay ñaan dem parce que loolu dafa bokk si ñun kon ku nekk war nga wuti ñaan. soo bëriwul gars yi waaw. loolu la il faut mu leer. Mm-hmm. kon il faut ku ne wuti leen alal. Mm-hmm. Seex Béthio lu tax mu neex ma wuti leen alal pour nga mën a dimbali taalibe Sëñ Tuubaa yi pour nga mën a def màggal yi pour nga mën a def xoolal tijaan yeeg laay yi wuti leen alal. Mm-hmm. nga xam ni jour màggal wala jour gàmm nga defal sa sëriñ ba mu kontaan. wuti leen alal alal moo koy def. Oh. ku amul alal doo ko def wuti leen alal. Oh. wuti leen alal. parce que alal mooy lijjanti lépp. Oh. réew mi boo amul alal doo dem réew mi boo amul alal kenn du la respecté. kon kon daal sëñ mhm. def ñëpp mbind milliardaire. parce que damaa gëm ni. alal mooy doxal lépp. Mhm. damaa gëm ni alal mooy doxal lépp te alal boo ko amul doo mun a gàmm sa gàmm du neex. mais bis boo amee alal sa gàmm dina neex ba nga bari mbooloo ba ñoom di sant. Mhm. yàlla bind li si tiyaaba. mooy màggal ki nga taal bi suñu Tuubaa waru ñàkk alal. parce que chaque jour dafa war a màggal berne yi di dem te loolu milliards noo koy def te wutilee ay milliards mm-hmm. Mm-hmm. kon tey mm-hmm. mooy sëñ Ablaye Faye ndax pare na tey bu jàppale ak ki la nga xam ne moom moo di la dageer ci lii la nga xam ne guute buñ ma woowee ma fay ko vingt millions yi mu génn buñ la woowul du koy fayee il faut ñu ma ma fayee leen ko Hmm? ma fayal leen ko. suba buñ la woowee nga ma buñ ma woowee ma ñëw fayal ko. kon bu baax. ma woowee ma fayal ko te incha allah rabbi buñ ma woowee. Hmm. dinaa woo ba kilifa bu mag. Hmm. pour ma génne ko foofu ma fayal ko ma génne ko foofu. Ah, waaw loolu foo laa mën a yam nag parce que am naa cër ci réew mi. Ah, réew mi am naa si cër te dañ maa te boo xoolee sax Sonko si boppam. ba si Jomaay. dañ maa respecté. Oh. parce que réew mi amul kenn ku fi nekk président te doo ma respecté. Oh. parce que damaa bokk si réew mi te damay def ay jëf yu rafet. di jël alal bi def di ko def si réew mi. di jël teraanga di ko def si réew mi kon dañ may respecté dañ may fonk te man it am naa fa ay kilifa yu mag yoo am ne lu ma soxla dañ ma koy defal. Oh. waaw social bi naan su ñëpp laa ko yamale. Mm-hmm. Euh, macha allah sëriñ Ablaye Faye kàddu gi am na solo bu baax a baax a baax daanaka nag waxtu bi jeex na xam naa rek li ñu def nag bàyyi la nga tàggoog mbokk ak mbokk la doon si dara. waaw li may tàggatoo mooy réew mi nañu yàlla may nu jàmm. yàlla may nu jàmm may nu salaam. may nu teraanga yu bari may nu wërsëg ak jàmm ak xéewal. yàlla yaatal suñu lépp ba seen liggéey télé seen télé yi mu dem ba nekk ay télé télé. barke Seydina Mohamed. wa salaam.